ñu ngi ak monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye jiite convergence libérale et patriotique ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. Ah, maa ngi lay fay soxna si di nuyu Sénégal yi ñu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey alors ñoo ko euh, mhm. tuddee bi ñu tuddee président Abdoulaye Wade stade ba ca Diamniadio dafa indiwaat mbiram euh, li ñu naan retrouvailles libérales maanaam njabootu euh, libéraux yëpp àndaat daje bokk di yëkkatendoo ak di tëralandoo demb bi ñu dégloo président Doudou Wade amatul sikki sàkk ci ne ay waxtaan ñi ngi am et yëf yi ñu ngi dox léegi kay laaj bi mooy fan lañ ci toll loo cay tontu yow waaw fi ñu ci toll moom du neex a wax ndax euh, wolof dañuy lépp ni mbaam du jur ci jaa jaa mooy marché maanaam loo gis mu feeñ tey rek dafa fekk ni lu jiitu ñu ko doon dox ñu ngi ko doon waxtaan mm-hmm. te gis nga ni ñëpp Sénégal yëpp teewee nañ ko deux mille deux deux mille ak ba deux mille douze ba léegi en tout cas man bokk naa ci ñi nga xam ne moom mu sa nekk suñu combat ku dégg ba jëkk suba kon lii nga xam ne moo am tey euh, dafa del war a am tàggoo gi moom wërta am mais àndandoo gi mooy li nga xam ne moo war a am donc tàggoo gi maa nag li ñuy wax rek bëñëg làmmiñ sax ñoo dëkk dañu xuloo dellu àndaan famille boo dugg lu mel noonu dana fa am mais li ci am solo mooy tey ñu àndandoo booloo nekk benn parce que dégg naa président Doudou Wade wax na ko man di ko rafetlu may weesu sax loolu parce que du question bu baalante ndax li ma jàpp mooy ñaari guñ buñ jotee kenn ku nekk am na foo xam yaakaar nga ni yaa fa am dëkk li am solo kon mooy ñu fàtte loolu yëpp àndandoo liggéey joxante loxo parce que loolu mooy intérêt réew mi mooy intérêt également langue politique yi nga xam ni. Mm-hmm. ñooy tudd seen bopp la famille libérale. Mm-hmm. li tax ma ne mooy intérêt réew mi. gis nga ni président yi fi jaar rek kenn ku nekk def nga sa warugar def nga li nga mën ci réew mi. Mm-hmm. waaye nag sénégalais yi gis nañu aussi bi président Abdoulaye Wade ñëwee. la ñu gis ci réew mi lu ñu gisul woon chantier yu ñu yaakaarul lu mënul woon am. ba mu koy def it lu nekk dégg na ko ci lu ñaaw muy autoroute à péage muy Euh, monument de la renaissance mu yeneen ak yeneen ak yeneen yoo lu ci nekk ba mu koy sumb da nga dégg ay nit ñu ko doon ŋàññ waaye ba ñu ba cëppaandaw ja gis nañ ni jaroon na ko mu fi jógee président Macky Sall mi nga xam ne moo ko fi wutu te bu leen fàtte ni chantier yi président Abdoulaye Wade doon ubbi boo ci ubbi décret ba ca suuf rek bu ko Abdoulaye di signé boobu da nga gis Macky Sall nekk premier ministre signé ko ca suuf moom tamit hmm. loolu taxoon jamono yooyu président Abdoulaye doon wax ni xaal bu nekk ñam naa ko waaye bu safini suukar musuma ko ñam <laughs> ni enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre hmm. kon ba mu fi jógee Macky remplacé ko dafa continuer lool mu doon def président Wade defoon na fi autoroute à péage hmm. Macky Sall ñëw dolli ci Ila Touba muy desservir le Sénégal hmm. nga gis aéroport AIBD Macky président Wade commencé woon na ko Macky Sall non seulement eggale ko mais di defar yeneen aéroport ci réew mi ak aéroport internationaux route yi pont yi nga xam def na ko tey fi may waxee yow ni maa ngi ci digg Casamance mais boo gisee li nga xam ne def nañ ci réalisation kenn mësu ko xalaat ci àddina mm-hmm. donc ñu gis ni kon àndandoo boobu njariñu Sénégal la mais njariñu la également en tant que famille politique mm-hmm. parce que les libéraux boo leen xoolee ni ñu wotee ci Sénégal yëpp téeméeri Sénégal yooyu juróom-ñaar fukki yi lu mu gàtt gàtt vote libéral la ñuy wote mm-hmm. parce que tey ñi ngi wax Abdoulaye Wade ak Macky mais yamul foofu par exemple Pape Diop mi ngi ci tedd ci dox tànk yu am solo Idrissa Seck mi ak ñeneen ak ñeneen Habib Sy Souleymane Ndéné Madické Niang a suñu rakk yi nga xam dañu am sañ-sañu jàppale leen mooy ku mel ni Modou Diagne Fada moo dee Aliou Sow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm. donc en tan que parti dañ ci am intérêt mais également et surtout Sénégal dafa am les retrouvailles de la léegi bu fekkee ànd bi sotti na bi yoon lan la ñu ci mën a xaar muy njeexital li ci nu mu gën a gaawee ndax ñu ngi jëm ci gouvernement Karim ma nga ca dowaa bëgg ñibbisi ñu ne mu tëkko euh, loola yëpp yaakaar nga ni mën naa am euh, njeexital yu ko retrouvailles yi jural. waaw man de yoon wi ma jaaroon ba léegi wàccuma ko ndax li ma ci jàpp mooy bu ñu àndandoo tey li ci jëkk mooy ànd dem benn liste aux élections législatives. Hmm. bu ñu àndee dañu gagné largement élection législative yooyu. bu ñu ko gagné aussi jàpp naa ne assemblée bu bees bi acte bi mu war a jëkk a li mu war a jëkk a def hmm. mooy fexe ba dal gën a ñëw ci réew mi jàmm gën a ñëw ci réew mi ndax ginnaaw ay jàmm Afrique du Sud amoon na fa te seen combat moo gën a metti ak feneen ak feneen kon assemblée bu bees boobu di ñëw après le 31 juillet acte bi mu war a jëkk a posé mooy voté benn loi d'amnistie boo nga xam ni muy xalifa Sall muy Karim Wade muy ku mel ni ñoom bu ñu bëggee dugg rek lañ bëgg nekk candidat à une élection présidentielle danañ ko mën a doon loolu mooy acte moom la war a moo war a am conséquence bi aussi ay nit bu ñu àndee wuti bu ñu amee dañu koy bokk bokk bi donc li muy indi ji mooy PDS ànd ci gouvernement bi nga xam gouvernement bu bees lay doon hmm. te bu ñu fàtte ni ñun dañuy wax rek famille libérale mais Macky Sall am na ñu mu àndal te du ñu ay libéraux ñooñu dañ ci war a continuer ci ànd. Hmm. PDS am na ñoom ànd te du ñu ay libéraux ñooñu aussi dañ leen war di sóoraale loo ci mën di seete gouvernement dafa soxla majorité. Mhm. gouvernement dafa soxla dal dafa soxla assemblée bu am boo nga xam ni bu am dal lay doon. Mhm. te loolu bu ci àndee jàpp naa li muy jëkk jur ci mooy li ma la wax nii. dem aux élections gagner élections yi pacifier dëkk bi taxawal gouvernement boo nga xam ñoo ñëpp danañ ci mën a bokk. li ngay wax nii bu amee maanaam PDS ak euh, Macky Sall ànd dem ci élection législative yi gisoo euh, président Macky jël euh, kenn ci PDS def ko premier ministre pourquoi pas Karim Wade bu dee ñibbisi na ndax ànd gi moom yaakaar nañ ne buy am Karim di mën a dugg Sénégal. waaw xam nga premier ministre moom moom ni ñu ko waxee prérogative bu président la république mooy seet ki ko doy ki yaakaar ne li mu bëgg lii mën na ko defal mu jël ko man li ma jàpp nag mooy euh, samp premier lu tey laa ko jëkk wax du loo nga xam ne lu jàmp la tey hmm. ndax mënoo génn ci élection yii ñu de génn ni bërki de mondiaay war dem ci élection dans cinq mois ci diggante bi nga taxawal fi gouvernement boo nga xam ni boo demee élection ba génn ci da koy tasaat loolu amul donc jàpp naa ne daal li am solo tey mooy ñu dem ci élection législative yu leer ndax jàpp naa ne Sénégal moom kenn dootu fi wax naan processus électoral baax na wala baaxul. Mhm. ndax élection yu génn wane na ni yàgg nañ leen ko wax kenn mënul sàcc élection au Sénégal. Mhm. kon jarul ñuy yàkkamte taxawal un premier ministre wax naa ko waxaat ko. nañu dem ci élection bu ñu ci génnee nag dañuy gis mu am leeraay dafay dafay leer ñu xam kan moo am majorité kan moo am minorité. Mhm. ki am majorité lu mu am ki am minorité lu mu am ci base boobu nag nga mën sukkandiku. pour tànn premier ministre boo nga xam dana mën a liggéey. Mhm. tànn gouvernement boo nga xam également dana mën a liggéey. ma jox la benn exemple tey. Mhm. bu ñu formé gouvernement nii dem ay élection opposition bi am majorité nu muy def da nga tas. Mhm. jël un premier ministre de l' opposition amul sens. donc gisuma fi lu jara daw bay daanu. nañu ànd ak dal ànd ak tekk ànd ak teey dem aux élections législatives bu ñu ci génnee nag. am gouvernement nga xool lu mu gàtt gàtt gàtt pendant deux ans. Mhm. dana mën liggéey continuer li nga xam moom la ñuy def ci réew. ñu wax ci législative yooyu caution ak parrainage yaakaaroon ne diis na lool comme segg ñi nga xam ne ñoo war a dem ci élection yi bu nu mayiwul dana am ñu bari ñoo xam ne danañu leen gàllankoor te mu mën a doon it ñu am njariñ ci askan wi. waaw segg bi moom mënta ñàkk gàllankoor bi mënta ñàkk. gis nga mhm. France gi nii ñi ngi dem élection présidentielle. am na ñoo nga xam ne amuñu parrainage te pourtant jaakaar nañ ñu war nañ mën a doon président. Mhm. maintenant li ma jàpp aussi mooy ñooy amaguñu euh, solution bu dëgg dëgg dëgg amaguñ ko ndax gis nga même ci élection territoriales yi ñu génne nii. Mhm. def nañu ay segg teg nañu. Euh, caution bu ñu waroon déposer et tout mais terul nit ñi dañ koy wër dañuy contourner loolu pour mën a bokk ci élection. Mhm. foofu tamit dafa am jàngat dañu war a fexe ba am ay liste yu sincère parce que li ñu gis tey mooy da ngay gis kon bokkoo ci parti bi. mais bëgg dem élection dina tax nga dem seeti koo nga xam versé na caution ba pare nga jël euh, récépissé pour dem ci à des élections élection delloo nga jaax jeexee nga delluwaat ci sa parti gis nañ ko fa ay cas yu bëri bëri bëri te loolu aussi war nañu def mais démocratie mooy doxee noonu dangay ngay ay jéego ba defee ne paax na boo demee bi nga koy appliquer nga gis ne am na lu ci manqué mais boo gisal mu am lu manqué it bul am rëy bu am dara da ngay delluwaat ginnaaw réfléchir seet yan solution la ñu mën a jaar ba ñu mën a régler problème yooyu. Mhm. ñu wax ci local yooyu justement lan la ñu ci war a jëlee comme jàngat gis nañu la xew waaye maire bi dañu ko fal aussi suffrage universel direct waaye bureau municipal bi euh, demeewul nii ba tax mu indi jafe-jafe ak yeneen i mbir yoo xam ne xëy na ñàkkul ñu war ko ci joyanti ci processus électoral bi lu ñu ci war a euh, jàngatee. waaw mooy la ma waxoon rek xam nga xam nga fekkee ngeen ko yéen ñëpp bi ñu demee ci dialogue politique bi wax ko ci nañu waxoon ne dañuy fal le maire au suffrage universel direct far adjoint yi par le conseil municipal balaa waxoon ne baaxul. Hmm. parce que dafa am li tubaab bi rupture d'égalité maanaam tolloowuñu yamale wuñu maire bu njëkk dañu woon dañuy fal liste liste boobu dajaloo far maire ak ay adjoint ma ni leen nañu dees loolu bu ñu ko defa kon bu ñuy fekkee dañu bëgg a fal le maire au suffrage universel direct nañu fal également adjoint yi ak secrétaire élu yi loolu mooy tey kuy présenter liste da nga naan sama candidat maire diw la premier adjoint diw la deuxième adjoint diw la secrétaire élu diw ak diw la mu leer citoyens yi woote xam ni ñii la ñuy woteel mais ni ñu koy defee ni wax dëgg yàlla waxoon nañ leen ko ca njëlbéen a ah, ñu teg ñu majorité majorité opposition noonu na li mu ànd contre proposition bi ma defoon ñu daaneel ko mais gis nañ ne tey lii ñu def ni également jëmul kër kon nañu toogaat waxtaan def nañ ay avancé dëgg la mais nañu toogaat waxtaan seet naka la ñu mën a jooyantee loolu. Mm-hmm. ba ëllëg si biir ñu am élection yu gën a jaaree man daal jàpp naa ni dellu la woon am benn liste wala bu fekkee amuñu benn liste. ku ci nekk sa bureau municipal nga présenté ko de le départ mhm. ñu xam ne bu ñu gañee kii mooy maire kii mooy premier adjoint kii mooy deuxième adjoint ba mu jeex mhm. buñ ko defar ay naxante lay jur ci biir ñu wax ci euh, guerre Russie Ukraine euh, ba tey euh, yëf yaa ngay wéy ni ci àdduna bi taxawee Sénégal Afrique ak autant États-Unis noo ko jàngate waaye ni ma ko jàngate da mooy pour la première fois Afrique war na mën a taxaw régler problème mu àdduna bi mhm. ndax première guerre mondiale ba mu amee bi mu demee ba ñàng tubaab yi dañu yónni Blaise Diagne Blaise Diagne ñëw Afrique wut si fi ay soldats dem fu mel ni Touba Serigne Touba jox ko ay soldats ak ñeneen ak ñeneen jox ko ay soldats ñu dem xeex bii yoon neneen lañ ko war a régler ndax gis ngeen ni tey adduna yëpp dañu daw wutal si Afrique Russie yi bëgg a ñëw Afrique Chinois yi bëgg ñëw Afrique kon pour la première fois jàpp naa ne président Macky Sall mi président Union africaine war na mën a jël son bâton de pèlerin tàllal loxo Poutine ndax jàpp man bokk naa ci ñi jàpp Poutine tey déglu Macky Sall moo gën a yomb ci moom mu déglu Macron wala ku mel ni moom. ndax la ndax ñeneen lay xeexal ñiy xeexul ak ñoom dafa bëgg a si ak Afrique. comme dafa bëgg a jubóo si ak Afrique nag Afrique moom mu bëgg a si war na mën a profiter ci loolu vraiment dox ci tànku jàmm pour que jàmm mën a dellu si ci àddina. Mm, waaye ñu bari ñu ngi artu sax keroog président Macky gisaal nan ko bul topp Emmanuel Macron ndax te dañu ne Sénégal moom euh, bu France euh, sojee mu tàmbalee tis li est-ce que gisoo ni xëy na euh, li ngay wax nii moom mën naa bañ a taxawee noonu waaw mais xam nga loolo moom ay wax opposant la rek. Hmm. ndax Sénégal moom dafa am position di ko défendre France am intérêt moom it di ko défendre suñu intérêt nag mën na daje. Hmm. bu dajee nag c'est pas parce que diw mën na wax li wala xalaat leen duñ ko def mais jàpp naa ne tey daal li war nekk suñu position du topp France du topp keneen parce que toog nañ kii moo tooñ kële moo tooñ du mooy régler problème lii régler problème mooy fexe ba ñu mën a toog waxtaan te loolu li ma jàpp man tey. Mm. mooy la voix de l' Afrique baatu Afrique kaddu Afrique. Mm. tey ki ki ñu ko dénk tey di président Macky Sall war na mën a jël kaddu googu wax ci ak le président Poutine te am na yaakaar te buñ ko jaar fi ñu war a jaar Poutine war na ko mën a dégg. lu lu mën a xeebu la nag. ci mm-hmm. gis-gis. Mm-hmm. ndax nañu jàppee Afrique ci wàllu koom-koom ci wàllu armement. mais ci wàllu xalaat ak wàllu Russie mi bëgg a dugg ak mhm. a diplomatie mhm. sénégalaise bi nga xam ne bu ñëpp naw dans le monde mhm. am naa yaakaar ci ne bu ci président Macky Sall ay jéego war nañ ci mën a am ndam jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye euh, amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinale Rewmi FM tey <laughs>